muna godiya abin ga alhaji ibrahim anyas sai muka fito ghana muka zo aka kawo mu lafiyar senegal ga wallah mun ji daɗi a yi min addu'a mu komu da gidan lafiya mu samu kudi wallah ya yi kokari darjanci duka wallah ya yi kokari alhaji ibrahim anyas dawurma ghana muka fito ghana muka zo nan sai kuma kai mu lafiya haka nan muka zo lafiya ne kuma kai mu lafiya haka shi Allah Allah kai mu sabon shekara kuma mu kuma zo mu gaishe shi mu kuma zo mu gaishe shi ko mu da jinki shi da family shi da umman shi da yaran shi duka Allah bai ko duka lafiya Allah bai bushiyar na duka lafiya Allah bai masalakin na lafiya Allah bai kowa duka lafiya sai mu fita Alhaji Ibrahim Anyas mu fito Siniga kantir Siniga ga mu kowa duka alheri kowa duka samu lada kowa duka samu loro ya shi wannan duka muna zuwa nan ga na duka kowa duka koma gidan lafiya ya samu kudi ya sai loro ka ya gina gidansu eh, alhaji ibrahim anyas zawurmanti sai arjama mai salamu alaikum yeah i came from ghana yeah we are from ghana oh we came to senegal oh everything is normal normal oh she ibrahim anyas oh everything go normal normal their food, oh, everything, attire, their food, they, uh, my college, they, oh, everything. Oh, we are satisfied now, now, It's thank you. We pray God. We pray God. We pray God. yɛfiri ghana na ɛba senegal o yɛba no biribiaa kɔ so normal normal aduane wɔ hɔ biribiaa wɔ hɔ o ɔmo deɛ ahatefoɔ deɛ o biribiaa normal aduane deɛ atae wɔ hɔ aduakomi nam koraa wɔ hɔ biribiaa wɔ hɔ o ɛkɔm koraa nkyerɛ wɔ biaa biribiaa yɛwɔ hɔ biaa o yɛnyɛ bi fine fine fine fine wɔn ho yɛkaase nie yɛkaase nie yɛmɛsɛ sɛ wɔase mɛsɛ ne sɛ wɔase mɛsɛ razak wɔase these boys wɔ ha awura mu nyinaa nyinaa wɔ ha o yɛfita wɔ hɔ mr ben ɔno nso te hɔ nom a ɔno nso te hɔ nom a ah bakunne ye nyinaa yɛ wɔ ha farida farida farida de here farida mr hosi ɔkɔ kurom ahɔn ɔlɔdze take song two brothers wɔ hɔ uh, boy wɔ hɔ awule wɔ hɔ yɛ nyinaa yɛ o bibia yɛ normal bibia kɔ so ee walayi alamin mun fito ghana mun zo senegal ah komi tafiya ba wani fada ba wani abin ga sai ibrahim anyas o oh wallahi wallahi yayi kokari sun yi kokari mutane sun yi kokari fa mun yi kokari fa ba wani damuwa ba wani yunwa ba wani abin ga abin ga a ko muna tafiya